mooy màggalu mooy màggalu Touba Peex mooy bis bi nga xam ni sëñ Mahmoud Mbegere moo ko indi woon sëriñ Touba Peex ci ndigalal Cheikh Amadul Muntaxa ak sëriñ Cheikh Mbacke Cheikh Abdoul Khadir ak sëriñ Saliou Mbackeem sëñ Khadim aw Ba ak njaboot gi yëpp tey ku bokk ci peex ci ndey baa ci baay ñëw nga mais bu ñu mënee am CRD bu mel nii sant yàlla bu baax ak sëriñ Touba mais dañuy sant président de la république parce que moo ma jàppale ku ne gis na ma ci wetam ma nekk ci wetam waaye lu ma soxla it mu defal ma mu def ci loxoom looloo waral CRD bi poste de santé bi ma tabaxal peex peex gis na ko ku fa dem ci dëkk ba it xam gis la fa président def kon tey moo tax ma ànd ak waa peex yëpp génn ñëw def CRD bi chef de service yi ñëw. dëkk bi wax seen soxla wax seen i jàmbat indi seen i ñu déglu ko nu waxtaane ko ak gouverneur ba tënk ko ba le neuf ak jàmm ak ak ak lépp lu ca war incha bi bu neexee yàlla daañu ko def. mooy ñu ubbi lu poste de santé bi ndax bi ñu ko tabaxee léegi ñaari at la kenn ubbiwu ko lu toll noonu. chef de service yi ñëw nañu wax nañ leen ko ñi fi dégal médecins yi ñëw nañu wax nañ leen ko nee nañu daañu ko ubbi daañu ko ubbi dëkk ba amul reso boo toogee doo amul téléphone boo toogee loolu waxtaan nañ ko waxtaan nañu ak sapeur pompier li ci waxtaan sapeur pompier yi maanaam ci euh, buñ aju ajuma ak samedi ak dimanche ñetti fan yooyu yëpp. ñu couvrir ko nekk ko ak nun nu man ko àndante ak ñoom chef de service bu nekk nag wax nañu la ewe fooreeg ñi baleeg ñëpp kenn ku ne comité dégg nañu comité bi laaj nañu ñi yor organisation bi wax nañu leen ñoom it tontu nañu kenn ku ne fas nga ni la ma wax danaa ko def mosu ñoo wax nag te defuñu ko waaye xanaa ñu fàttali leen ko rek loolu mooy solos dëkk bi premier ministre moo fay ñëw fa lay yendu ak membre gouvernement bi ak ñëpp ñu ñëw kon ñoom ñëpp ñu ñu séentu leen opposition bi it ñëpp ñu ngi leen di woo parce que man diggante opposition ak pouvoir duma ci wax lu ñaaw lu baax rek laay wax kenn du dégg lu ñaaw ci man ma wax maa ngi pouvoir nag jàppale leen di ànd ak ñoom mais opposition bi dañuy samay nit it samay bokk-bokk ci du du ci wax kenn lu ñaaw euh, géwél lii waram mooy boole waaye warumaa xàjjale moo tax ñëpp laay wax lu baax euh, boo fa demee boo duggee ci dëkk bi ba bëggee génn booru tali bi lépp lépp ay làmp lañ ko def yokkaat na ci dëkk bi lu toll ci wëloolu 32 millions ci courant lu nu dese mooy ñu ubbi li poste de santé bi ak maire sama maire a ngi ni maire mi ngi fi woon ak ak nag collège boo xam ne bii dañuy dañuy xale yi dañ fay jàngee dootuñu dem Kébémer loolu maa ngi ciy waxtaan ak Cheikh Omar Anne mi ko yor ak ñi ko yor yëpp parce que bëgg naa daal lu dëkk di am pexam am ko. daf nu sonal mais gendarmerie wax na léegi nii fe ba ba may am juróomi fan daañu sekk li wër dëkk bi yëpp gendarmerie daañu fa taxaw ba kenn du jàll. baa ku fay ñëw nànk ngay daw benn mbaam du fa jege. loolu nag euh, ñi yor jur gi vétérinaire euh, euh, ministre bi yor vétérinaire moo nu ci war a dimbali élevage moo nu moo nu ci wàllu dimbali parce que loolu dem dimbali nu ci dafa baax parce que accident yu bari mbaam yi ñoo koy provoqué mais ñu ñaanit ñi dawit na ñu daw ndànk yàgg na booba sax gënee gu ma jamono mooy bi sëñ tubaa sëñ Mahmoud Mbégéré indi sañ tubaa peex war naa toll ci téeméeri at ak juróom am nañu ndox am nañu courant lépp yem na xanaa dolli ndax dëkk ba nag day màgg dafay màgg te mi ngi law law boobu muy màgg nag di law moo bëgg moo toxit lu fa ñëwit dañuy dolli waaye lépp am na fa parce que 2005 euh, boobu nga wax bi bi coow li mittee dama dajale waa kër Macky Sall ak waa kër ab Ablaye Wade ñu dugg ci benn néeg saal ma jubale leen ñëpp juboo loolu lay dox jàmm jooju lay waxaat parce que wote jëru xeex jëru xuloo te kuy xuloo di xuus booy laayee tefesu mën a dem pénc yóbbu fa dëgg moo ko gën kon nan jàmmoo rek Sénégal benn bopp la jàmm jooju laay woote waat te dimanche ja bu ma xëyee damay def conférence bu mag yéen presse bii locale bi yëpp ak yéen ñëpp invité waat naa leen ngeen def ngeen def ak man ma wax jàmm ci réew mi opposition bi pouvoir bi ku ci nekk ma wax la la nga war a def ndax bari na ku nekk ci politique di xeex ak pouvoir te boo déwee politique day biir waaye du xëy wasin koy sam noonu ren ci politique bu déwénee mooy sam sopp kon jëru xuloo jëlu xeex loolee ma defoon danaa ko defaat. waaw daf fay am parce que magal gi daaw amul ndax accident bu waa Pexam ba ba quatre personnes gaañu ci dama fomoon magal gi ndax quatre personnes mënut te dee ci dëkk ngay def te diggante gàdd mbiraamal ak peex yooyu moo tax mu ma xeex ba poste santé am fa. poste santé bi am na fii ne maa ngi wut ñaari ambulance yu ma fi indi ambulance yi maa ngi bëgg mu nekk ay 4 x parce que li nekk ci ginnaaw peex dëkk yooyu yëpp amul amul goudron parce que 4 x moo fa war a dem loolu maa ngi bu ñu Kébémer la ñuy dem ak Ngouma Ngeewul mais bu poste santé bi kay bu ñu ko ubbee nu dem fenn.